walakum fi rasulillahi uswatun xasana kon ndaka yonent bi la yàlla santaane ngir nit ñi roy ci moom bu ñu demee ëllëg àjjana yit kii jëkk a fëgg bunti àjjana mooy yonent bi alayhi salatu salaam awalu man yaqara xabaabal janna ahmaduna al muxtaar muhyi sunna xam ne suñ borom fonk gi mu ko fonk moo tax mu jël turam taf ko ci turu yon taf turu yonent moo ne laa ilaha illallah te waxoo muhammadu rasulullah sallallahu sa pas du dëgër mm. te yàlla mooy buur waaye faaw nga ne la laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu nit ki di nodd nga gis fi ñu yàlla dugal alayhi salatu salaam boo ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon sun borom dafa fonk yonent bi alayhi salatu salaam ba tey dafa jël turam tudd ko waaye boo demoon tey ci asamaan yi juróom-ñaar da ngay fekk turu yonent bi alayhi salaam boo demee ci àjjana fekk ko si mm-hmm. faaqa siwa minal baraya bi huda hatta bada kat bu sama fi arsikal machim boo demee ci aras da nga fay fekk turu yonent bi alayhi salaam muhammadu rasulullah kon kooku dayo bu rëy bi ko suñ borom jox kenn mësul am dayo bu toll ni yonent bi alayhi salaatu salaam te nga xam ne min nuurihi kula nuurin saatihun bi sanaa nuuru nujum wa nuuru shamsi wal xamar jant bi xoolal ni mu leere weer bi xoolal ni mu leere seen leeraay boobu li muy leer leer mi ngi bàyyi ci biir leeru sallallahu alayhi te loolu dana la doy misaal ci bis bi muy feeñ jamono moom alayhi salaatu salaam nga xam ne mu ngi feeñee ci umul xura di makkatal mukarama distance bi mu am nga xam ne ca xaysar nga xam ne am na ci ñoo xam ne bi ñuy nettali sëñ Tuubaa di wax ci tatay Kisra jooju ak ña newoon ca yeneen béréb ya teewul bi muy feeñ xay yi nga xam ne leeru Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na ko hmm. ñi soree woon Makka lu toll ci cinq cent wala quatre cent et quelques kilomètres hmm. ñi ngi jàkkaarloog léegi yi Makkatal Mukarrama ndax leeru yonente bi alayhi salatu salaam moom nga xam ne dafa fenq hmm. leeram gu màgg goo nga xam ne bi muy ñëw adduna bépp yëg nañ ne xajjub suñu borom mooy wàcc tey muy yonente bi alayhi salatu salaam mi nga xam ne mbooleem looy xool ci alxuraan li ko yàlla jox nga xam ne alam nashrah laka sadrak wadanaa anka wisrak alladi anqada zahrak wa rafaanaa laka dikrak demal ci wadduhaa wa layli isaa sajaa maa maa waddaaka rabbuka wa maa xalaa wala al axiratu xayrun laka min al uulaa wala sawfa yu'tiika rabbuka fa tardaa